Ndiaye moom bon Serigne Ndiaye boole boo xam ne moom du fonk ku fonk lu muy def la waajal na lépp lu mu war a combat bi sincèrement bu entraînement da combat ak am combat la yem la chaque jour dafa pare pour côté entraînement kon combat bettu ko dara dara du ko bettu quoi kon moom pare avant combat. mais tey Serigne Ndiaye ki muy bëree sax xam ngeen muy bébé Saloum ñëpp bëri na leen dafa yor bukki. bébé fois ko xam nañ ko quoi Abdou bari nag Lama Lama dan ko fas Lama dernier mam fas dafa daanu malgré amna fa victoire nak mais muñu buñu muñu bari dafa daanu kon ko mbeur buñu xam la du mbeur buñu jaxal ci si mais nak respecté nañ ko tamit ak ay qualité yu mu yor dañ ko respecté torop xam nañ mbeur bam qualité la kuñu respecté la xeebuñu ko ben yoon waaw. waaw sëriñ bi waaw maintenant dëkk mais mom face drapeau face la portée il faut gars xam il faut gars dem di bàyyi loolu xel doomu mën naa nag dëgg la nag maintenant Fass kenn mënu ko xaajale mais moom drapeau Fass la porté écrit Fass la la bokk waaw dafa yóbbaale Ndakaaru nag dafa ëmb Ndakaaru yëpp day day bëral Ndakaaru lay bëral waaw moom mbaru Ndakaaru la noonu la demee waaw. <laughs> lu nga koy ñaax mu respecté waa ji na ko respecté bu mu ko jàppee ay mam yaa ma mag wala yooyu na ko jox cëru mbër bu mag waaw jër cër mbër da nga jox cër man dama gëm mbër bi jox mbër cër pour def pour nga def lu nga bëgg a mais minimiser mbër man gaw ak mbër bu mun doon Joko cer cër tax nga mën def lu nga bëgg def waaw loolu nga ñaax mu jox cer cer bobu boobu tax lu mu bëgg def da koy def incha allah. supporters yi maa ngi ñaan yàlla supporter, fair play supporter yi ñu leen di ñaan affaire yu ñuy jëma a ni nii di xeex diggante Fass medina loolu xaju fi maintenant Fass ñom ay xalé lañ mënuñu ko yaq nañ bal bàyyi seen xel bu baax kenn mënuñu yëy kenn mënuñu boole kenn mënuñu jaxase boy nañ nekk nit ta bay li ñuy def loolu xajul fii wa giri mu ngi fi mu ngi wajal bu baaxa baax waaw waaw waaw waaw waaw mu ngi waaj mu ngi waaj te boo gisee dafa tukki woon ñëw dem préparé te boo xoolee mu ngi si boo xoolee état bu mu nekk nga xam ne kii mu ngi waaw mu ngi waajal baax a baax yàlla baax na waaw non mais yàlla baax nañ bàyyi boobu rek <laughs> waaw yàlla baax na kuy dem guerre doo waxe sa arme quoi waaw la mu si wax du bëri day attaqué day cogné te day te yii sax yoonam la rek. on tire à un li yoonam la rek. waaw. non loolu affaire bu xale la rek booy yu ndaw ñoo nekk di def rek du grand yi booy yu ndaw yi daal affaire rek moo tax ba léegi gisoo kuñ toj boo xam gisoo dara hmm. affaire bu xale la rek booy yu ndaw yi xamal gën a xam fësal fësal rek mais du leneen fii ñun ñëpp a far Médina Fass Gueule Tapée waaw lépp Ndakaaru la. ba Grand Yoff sa Ndakaaru moo jur fépp ba pare. waaw tagal ko loolu eh, grand bi jël moo lépp ak ñëpp. après dégg mhm. yow xam nga man xam naa te yow yaa ngi gis booy pare na fépp du ma wax bëre du ma wax leen bu ma waxee bëre boo duggee mbapat xam su mun door dóor day nit muy wàcc kon leneen ngay wax Serigne Ndiaye déglu ma wax sa kaw sa kanam rek na yoon bi leer bu génne si combat bi. xale yi nee nañ la mu war a bëreeg Zarko moom rek lañ soxla. non Zarko du ko laal. ñu nelawuñu Zarko laal lool yoon bu baax bi lay xool. Zarko du du laal Serigne Ndiaye leneen lay xool. lak hmm. lak la ñuy xaar. lak lañuy songi dem defal ko affaire duggu ci kaw bu paré luñ fa rom lañuy fowéré ndam barke serigne touba bu sedd guuy inshallah te yalla ñu ko yalla may inshallah xalé nañu téy rek dem ci bor rek ñibi ci waat ci jamm ak salam te inshallah na giri boro, paré na ci fep paré fep bay dégom la face benen mo ñëw instant ni te yalla yalla xép doli sutura rek instant lañuy ñaan inshallah yalla ah yàlla na koy yàlla may ndam bu sedd guy mu gañe si incha allah boo yëpp ñëwaat si jàmm salaam kenn bu mu gaañi stade yi am jàmm wax bi jeex waaw man la dembis bu coriace damm moo ma def buñ ne bi suba la laa damm veille combat bee nekk hôpital deux mois man la dembistro bu coriace dërëm dara du xew dof bi maa ngi toog dembistro waaw Sénégal mbokk aduna bi ci si rawatina wa diaspora bi tay ñi fi ci kër Serigne Ndiaye 2 bu fas ñu ko seen jël départam am waaw gaa ya ngoog di génn ñu génn njaq Serigne Ndiaye ngoog champion bi ma ngay saraxé ay mburu champion Ndakaaru mburu Ndakaaru waaw xale yaa ngi ñaanal yàlla mbër ne ko mbeur yalla ga am ndam Serigne Ndiaye Papa ñoo taxaw champion Dakar le futur roi des arènes mooy sarax mbëri noonu sarax yi waaw grand loo may wax si sëriñ. macha allah xale la te am na jom bëgg na li muy def sérieux na teg si. mais Sénégal bi yëpp nee nañ mooy futur roi des arènes. waaw loolu buñ ko waxee buñ ko àdduna buñ ko waxee dañ koy gëm parce que boo doxee rek nga ne bind mbër ngi macha allah jox na cër li muy def daal jox na ko àkkam teg si day compétir. mais est-ce que xam nga ki muy bëreel tey. ki muy bëreel xam kaa tax ñu jël ko boo bëggee dégg-dégg di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam si Zarko laa jëm de. bu mu ko daanee Zarko laay jëlee ji. waaw. ah yaa wax loolu de. parce que Zarko dafa newoon dese na ko ñaari booy maintenant léegi bu paree après Serigne Ndiaye lay songi. mais ñi bëri nee nañu Serigne Ndiaye du moromu Zarko euh, euh, dañ ko war a jox sens. si kaw waaw mais léegi ñun Zarko daf ñu ameel ay boori boor ak yooyu noonu léegi ñun kii moo ñu mun a régleel défi bi Serigne Ndiaye la ñuy indi teg rek samp. waaye nag wax nga dëgg nag Zarko li mu def maintenant dafa rëy de. léegi ñun pour Ndakaaru nga xam ne ñu mun a noppaliku quoi Serigne Ndiaye lañ koy jox mun a noppaliku kii bu réglé loolu ñu avancé jàll ci leneen moom rek ñu dese. seen petit waaw te yàlla ko yàlla may ndam bu sedd guy. amiin waay bu soobee sunu borom. kontaan si kenn du yow. kooku mooy Seexa. baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul. di génn di def saraxe ànd ak papa Sopay Galas. bare bare naa yow mbare ngoog di génn mu ngay joxe ay saraxu mbër dégg ngeen waa Medina waa Medina yu noonu joxe na fruit bi mbare gi njaab ñu ngi en direct fii si leader 221 fii si Medina mbar yéeg na mbar yéeg na mbara ngoogu mbara ngoogu tey ngeen gis combat bu nar a mystique waaw sëriñ ñu ngoogu si digg ndaal toj na ndaal yi sëriñ Ndiaye na ndaal yi toj na ko si xible

maa ngay làmb